ñu am kersa di ko déglu ñu jël parole bi di ko tontu mun ko supporter mu dem yoonam comme Macky Sall. sama roñoñ dafa tuuru parce que bim kay indi fi pour ñu ñaanal que mu nekk président la j'étais à milliers de penser que 10 ans après dana taxaw gros œuvre boobu mu fa taxaw kon nak président Macky yal na la fayal bopam <laughs> témoignage témoignage boobu rek laa ñaanoon kalif bi ñëw nga fi jig nañu mais xam nga président Macky lan moo ma jooyloo le discours boobu sam papa Maodo. <laughs> ah xanaa da doon def ay témoignages booy euh, tuur ay xéewal peut-être loolu moo ko ëpp doole. ci njiitu réew mi. Ah, waaw ku rey juróom ñaar fukki nit toogoo wax ko ngeen ngeen ko témoin témoin ngi bay jooy. ah bon. waaw non non xam ne système que lui il ne manque pas grand chose s'il ne manque que Macky Sall ici xoolal mbooloo mi s'il ne manque que Macky Sall il ne manque pas grand chose. s'il ne manque que le gouverneur là na dem yoonam ak ñi andal mais xoolal li yi ay cadeau que ki nga xam ne moo Serigne Mansour. li nga xamni mom la génne si lima joylo moy jooyloo liñ ko yak en tant que citoyen sénégalais. mu exprimer son point de vue dans un pays bo xam bi ku nek amna na droit wax ni ki bëgg naa ko. mu ni Macky Sall bëgg naa ko. ñu yàq ka lu nekk dellu mu dellu gannaaw waaw dellu dellu gannaaw bi mu ñëwee mu répété exactement te loolu mu wax yépp képp ko xam ni kii doon naa fekk xam nga ni moo nekk si moom te xam nga ni itam loolu mooy dëkk loolu moo ma jooyloo mais xam nga président Macky lan moo ma jooyloo

Macky Sall ñëw ñu ñaanal ko mu nek président de la république mu daan ñëw di ronu tante bi xam dimension gamu gi ñu am suñu ay nawle fi ci Louga ñuy organiser manifestation yu melni suñ ko organiser des maraboutions ay six délégations de ministres dañ fay yoni Seigne Moustapha ak ni mu tollu organiser lu melni nii demal tey Tivaouane nga xol tay Abra seen gàmmu ñaata ministre ñoo fa nekk mais loolu mooy dëgg ñu war ko wax loolu mooy dëgg nan ko wax. non man moom banaa